amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin bokk yi ñu ngi dellu si di leen nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu dellu di yeesal suñuy siyaar ci ñëpp ak suñuy ndokkeel ci weeru koor bu tedd bi ñaan suñu boroom may ñu ñu àggale ko ci jàmm sama nangul ñu booleen jàmm yàlla yi def te dàq njàqare yeeg tawat yeeg jafe-jafe jamono yi ñuy dund yëpp suñu borom ci barke bu weeru koor wi mu ko fi weeru koor wi nga ko weeru koor yóbbaale ci barke alxuraanul karim barke bu weeru koor barke seexul xadim mbokk yi niñ ko baaxoo def ci weeru koor wi daayiratu muxaddimatul xidma ci waxtaan yi muy dundal le weeru koor wi fii ci jumaay Tuubaa ji ngi dellu si tey jii indiwaat fi beneen tomb ba ama am solo ñi nga xam ne jullit yëpp war nañ koo xam muy alkasbul xaraam xinda cheikh al xadim suwaruhu wa athaaruhu maanaam fàggu ñun ñëpp xam nañ ne sunu borom bi mu ñu bindee andi ñu àdduna dafay def lépp lépp lu doomu aadama soxla rek sunu borom def na ko ci kaw suuf ba noppi lépp mu jox ko doomu aadama daan ne xalaqa lakum maa fi lardi jamia li nepp ci kaw suuf lépp yéen doomu aadama yéen a tax ma def ko fi ndax mission bi nga xam ne moom la suñu borom jox doomu aadama mu wutu ko ci kaw suuf moo tax suñu borom may ko daraja jooju kon doomu aadama nag war a jug uti loolu yàlla def ci kaw suuf moo tax suñu borom dañuy wax ne fam suufi manaakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusuur li ne ci kaw suuf ci ay xéewal jug leen ngeen dem uti ko jëfandikoo ko kon doomu aadama faw mu am loo nga xamante ni moom lay nekkee ci kaw suuf loolu nag lu muy ut lay doon waaye sunu borom teg ca ne ko loolu ngay fàggukat da ci am am loo xamante ne nii daggan na leew na lu teey la da amal njariñ am na anam goo xam ne boo ko ne defee mu amal la njariñ waaye am ci anam goo xam ne boo ko ni defee du dëppoog sama ngërëm bi maanaa du la amal njariñ sa ngaañte lay doon moo tax ñuy wax talabul xalaal yaa ayyuha alladina amanu kulu mimma kom xalaalan tayiba waaye ni mu amee lu nga xam ne lu leew la noonu la amee loo nga xamante ne su borom daf koy tere muy lu xaraam li ñu gën a miin nag ci jàngale yi ak ci waxtaan yi mooy ñaare lu lew lañuy gën di waxtaane fàggun wu lew moom la ñuy gën a waxtaane moo ëpp lu ñuy jàngale itam rawatina bu ñuy jàngale ci mbindum sëñ bi waaye ñu gis na itam nag am na ca wet ga loo xamante ni lu xaraam la aw utin woo nga xam ne suñ borom gërëmu ko wu araam la te Sëriñ Tuubaa moom jàngale ko daan ci bàyyi xel bu baax a baax ndax lu tax mooy nit ki li muy dunde moom mooy déterminer mooy wane ay jëfam wax nañ ne nit ki lu mu lekk rek loolu lay jëf kon muy lu am am solo Sëriñ Tuubaa nag bàyyi woon ko xel lool bàyyi xel goo xam ne taxoon na mu daan ci wattandiku wattandiku goo xam ne sax néewaa na nga gis ko ci faneen fudul moom loolu nag tax na kon dana am solo lool ñu jàngat tomb boobu noonu ne te mooy ut fàggun woo xamante ni dafa araam ni ko Serigne Touba jàngale wala niñ ko jëlee ci Serigne Touba suwaruhu wa asaaro yan yan yan xeeti faggoon la ak yan jeexital lay def bu ko bu ko nit ki defee wala yan ngaañ la mën a am yu nga xamante ne nii bu amee ci société bi moom la fay jur yooyu bu soob tomb boobu bu soobee yàlla moom la sëñ Abdul Xaadir bu so alxaaji Cheikh fas yéene ñëw ak ñun waxtaanee ko ñun sëñ Abdul Xaadir bu so nag niñ ko xamee ci waa dëkk bi la niñ ko baaxoo rek fii moom ku fi gane àdduna rek la ñuy njëkk a def ci yow boo tollee ci jàng mooy jàngal alxuraanul jàngal la xam-xamu diine bi nga xamante ne ni mënta ñàkk loolu lépp nag mi ngi ko defee fii ci dëkk bi jànge xam-xam ci sëñ Afiya bu sa imam mi nga xam ne mooy jiite jumaa ji bi mu fi jógee yàlla def na mu wëy jàll euh, wëyal am gëstoom wala am sàkku xam-xam yàlla def mu dem Maroc demoon ci kulliya bu ñuy wax kulliyatu sharia nekk Agadir mu jàng fa ba am licence ci sharia waaye itam taxut mu yem foofa mu continuer am njàngam dugg ci master bu ñuy wax fiqhul muamalat wa xadaaya al asr lépp lu jëm ci wàllu jëflante ci fiq rawatina nag ci mbir yi nga xam ne moo jëm ci jamono ji mu gën caa màcc nag jëm ci li ñuy wax finance islamique li ñuy wax atamwilul islami muy lu nga xam ne lu jamono ji laaj la lu ñu bari di yittewoo la ndax ah, ay njariñ yu nga xam ne jàpp nañ ne wala ay solution yu ñu gis ne jàpp nañ ne mën na ko indi ci jafe-jafe économie yi nga xam ne mu ngi am ci àdduna bi bi mu defee wax waxda boobu ba noppi mastaram boobu ba noppi yàlla nga ko dimbalee mu tasjil ak doctorat ci jaamiat Mouhamadul Xaamis jaamiat Mouhamadul Xaamis bi nekk Ribaat fa lay nekk nii di def doctoram ñu koy ñaanal suñu boroom mu defal ko ci tawféex ba mu àggale ko ci jàmm kon sëñ Abdul Xaadir dañ lay bàyyi ak kàddu gi rek nga ñëw ak ñun ci tomb boobu te moo di mooy alkasbul xaraam mooy fag gin utin wu nga xam ne dafa araam ay ñu ko sëñ Tuubaa jàngalee yan façon la am yan xeet la am ak yan jeexital la mën a jur kon ñu ngi lay jox kàddu gi di ñaan suñu borom mu defal la tawfiq bu baax ngeen andi ko ni ngeen ko bëggee wala mu kawe seen jortu la bisimilah. ok jërëjëf Serigne Mourtala. bisimilah rahmaani rahiim. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina moolana muhammadin al amin wa ala wa sahbihi ajmain asalaamu wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi di ñaan lépp lu ñu fi jëf ci ay jaamu yàlla suñu borom nangul ñu ko te fulal ñu ko dencal ñu tiyaaba ji fu yàq àggul di sant bu baax ak di gërëm képp koo xam ne mi ngi topp ak fu mu ñu mën di toppee waaye di jiital cant gi ak ngërëm li ci sunu sëriñ Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal sunu boroom mu gën koo kàttanal gën koo dooleel ba naal yi mu naal ngir liggéeyale ko maamam jooju di sunu wasila Cheikhuna Ahmad Bamba lépp sotti ci kanamam te mu ànd ko taalibe yépp di sant bu baax a baax waa daayira muqaddamatul xidma ci kóolute gi ak xëy na yaakaar gi ñu am ci ñun ba waxoon ñu ñu bokk gëstu ci tomb bii muy tomb boo xam ne Cheikh Mamadou Mourtada comme ni nga ko leerale rek dafay tomb bu am solo bu mata waxtaane bu mata delloosiwaat di ko jàngat di ko nafar kon damay jàpp ne tey waxtaan wi xëy na nafar lay doon ak fàttalante rek waaye mën naa sax bañ a nekk loo xam ne dañ koy tuddee conférence wala yu demee noonu euh, bu ñu delloo ci mbindum sëriñ bi de danañ gis ne lu baree baree bari dana kañ xam-xam ak di wane dayo bi mu am ci dundu doomu aadama ndax sëriñ bi xam-xam rek la jàppee woon muy jumtukaay bi nga xam ne ci la nit ki ràññikoo ci la nit mën a jaare it ba am ndam muy ndamul tey ak ëllëg loolu gis nañ ko ci ay bayit yu baree bari yoo xam ne wax na ko sëriñ bi joxoon ko priorité lool ba wax nañ ne ndaw lu musaan ñëw ci moom te weesoogul xam daawu ko féetale fenn fudul ci jàng bu dee kuy jàng la bu dee magit mu jàngoon bu ñëwee daawu ko féetale fenn fudul ci jàngale ak yare waaye xam-xam boobu li muy am am solo ci ak yaatuwaay dafa am dayo boo xam ne doomu aadama bi moom nu ko ñàkk jàng nu ko ñàkk xam mooy li ñuy wax xam lu aju ci faratay jëmm loolu dafa war ci mukallaf mu ne mu xam balaa jëf lenn mu xam la ca suñu borom àtte ca anam ga nga xam ne noonu la ware ndax mooy tax xam-xam mooy tax jëf ja am njariñ mooy tax jëf ja ñu nangu ko loolu la suñu Tuubaa doon wax naan wa fi'lu shay'in qabla an ya'lama ma xakama fihi mutlaqan rabbu sama mimma ala mukallafin qad xaruma qaddim ala ibadatin taalluma wa fi kitaabi fasalu ahla dikar tuuba liman hamma bi ilmin da nazar kon nit lu nit kiy def rek ci ak jaamu yàlla te bu ñu waxee fàggu alal wala wut alal mën naa dugg ci jaamu yàlla ci kaw bu fekkente ni nit ki daf ay yéene ak jaamu yàlla waaye sëriñ bi bu ñuy wër ab mbindam danañ fekk ci beneen barab muy xamle ne jëmmi wut alal sax xam-xam mënu koo ñàkk jiitu kuy wut il faut nga xam la ngay wut xam àttee ca aju loolu la doon wax naan wa du faalam anna xayra mashtaxal fatan bihi ilmun wa diinullaahi jal man faatahu haadaani fi dunyaahu mustaxilan bilmaali an hudaahu fama la gadan siwal adaabi wa niqmatillaahi bil artiyaabi loolu li muy rek mooy wut alal te fekk xam-xam bi ko war a jiitu jiituwu ko xam-xam boo xam ne nit ki ci lay ràññeele li dagan ci moom lew ak li araam ci moom ak lañu sib ca moom dafay nekk lu war ndax bu ko deful rek xëy na fàgguteef la muy def mën naa nekk loo xam ne dafay mujj nekk musiba ci moom mu yeyoo ca merom suñu boroom waaye tamit yeyoo ca mbugalam looloo tax borom xam-xam yi di wax ne képp koo xam ne da ngay fàggu alal dañuy charte ci yow la ngay fàggu nga xam la ca lislaam wax ca lu ñu war a jëf walla lu ñu war a wax ndax dañuy wax ne Euh, nit bu ne damay bàyyi rek ba am jafe-jafe soog a jàngi loolu li mu koy indil mooy jafe-jafe mën naa am te du ko yëg mën nay continuer di jëf rek yaakaar ne li muy jëf baax na fekk li muy jëf baaxut xam ngeen ne euh, loolu ñu baax ña muy jamonoy saxaaba yi ba ñi ñu fi bàyyi ñu leen tudde ay taabi'un bàyyi woon nañ ko xel lool siiw na lool ñu ne Seydina Omar radiyallahu anhu daana wax ne kenn du toog ci marché bi te jàngoo li nga war a jàng li munta ñàkk ci sa liggéey laa yabi fi suuqina illa man tafaqaha fi diin wax nañ ne it imaam Malik daana wax kilifay àdduna yim jamonoonte loon naan leen képp koo xam ne day xëy ca marché ba wala muy commerce dee leen ko faral di yebal muy ñëw ci man nee nañ bu ñu musaan ñëw ci moom li muy def mooy dalay laaj ca la ngay yëngu bu fekkente ne tontu nga laaj yépp mu ne la waaw góor mën nga daal di yeggale sa liggéey bu fekkente ne nag laaj ya am na benn boo ci tontuwut mu ne la bàyyi fi place bi tëj ko te dem jàngi ndax boo jàngut di jëflante ak nit ñi mën ngaa nekk koo xam ne yaay nekk sabab suy tax ñuy lekk riba wala ñuy lekk lu noonu lislaam ci jamono yi nga xamee ne amoon na doole ci réew yi jullit ñi daanañ faral di am li ñu tuddee muxtasib muy rekk koo xam ne daf daan wër jayi ak jaayukaay yi di xool ña fay lal képp kum dem laaj la la ngay yëngu nga tontu ko ca tontu yu leer yu wér te wóor mu bàyyi la nga continuer sam njaay képp koo xam ne nag ñëw nañ ci yow laaj la ngay nakk nakal wala la nga war a xam ca la ngay yëngu xamoo ko ñu daal di lay wax nga bàyyi fi njaay mi te dem jàngi kon loolu lépp dafay wane ne xam daal li munta ñàkk ca la nit koy yëngu loolu farata la muy nag loo xam ne euh, nit ki bu koy jàng du rekk benn njariñ la koy amal muy xàmmee ca la lew ak la lewut ak la lënt déedéet waaye am na yeneen njariñ yu mën a amal nit ki njariñ yoo xam ne dafay dellu ci suñu suñu dundiin waaye da dafay dellu ci suñu wàllu koom-koom ndax dañuy wax ne ñaari accord a ngi nii wala ñaari pas-pas yoo xam ne ñoo taw àdduna bi muy pas-pasum njaay ak pas-pasub sëy looloo tax suñu boroom Euh, waxoon ne li ci suuf lépp bind naa ko jox ko doomu aadama bi mu waxee loolu nag bàyyiwul doomu aadama rek mu doxee nu ko neex di doxe sañ-sañ waaye daf koo tënk ci ay àtte ni ko looy def nii nga koy defee fii nga koy defee looloo tax borom xam-xam yi daan wax ne képp koo xam ne jàng li nga war a jàng ci lu jëm ci sa wàllu jëflante moo xam mu aju ci sëy moo xam mu aju ci njaay lépp loo ci jàng ba xam ko yaa ko war a defal sa bopp koo koy bàyyee mu la koy defalit it foo toll war nga ca diisoo ak moom te waroo ko bàyyee sax kenn koo xam ne daf la koy defal ku sàggan wala koo xam ne la mu war a xam xamut kon ci gàttal ñu gis ne euh, xam li nga war a xam ba noppi soog a yëngu am na solo lool ndax euh, li muy amee solo ci wàllu koom-koom mooy bu ñu fexee ba bala ñoo yëngu ci dara xam lañ ca war a xam dafay tax ñu mën a aar suñuy àq ak suñu yelleef ndax nit bu fexee ba lépp lu mu jëf mu dëppook lislaam lépp lu mu jëf mu dëppook sharia la muy jural nit ñépp mooy àq yi ak yelleef yi dañu koy sàmm ci anam goo xam ne anam la goo xam ne lislaam moo ko santaane moo ko digle waaye safaan bi bu amee bu fekkente ne dañuy liggéey wala ñuy fàggu wala ñuy wut te jiitaluñ ca xam-xam bi bi ñu war a xam loolu li muy indil mooy kon bu boobaa kenn ku ci ne dangay ngay doxee sañ-sañ kenn ku ci ne it da ngay na sa bakkan bëgge kon ñu gis ne kon tomb bu mel nii wala tomb yu mel nii muy di jëm ci jëflante yi aju ci wàllu alal jàng ko xam ko ba am ca ràññee dafay lu am solo loo xam ne njariñ la dana dellu ci nit ki ko jàng ba xam ko waaye njariñ lii dana law ba àgg ci képp koo xam ne day jëflante ak moom wala dañuy jëflante ak moom bu ñu waxee nag wàllu fàggu muy alkas bu ñu ko waxee ci arab ci làkku arab mën nañ ne day firi rek wut wut wala am dana firi tolob dana fiir ibtiqa dana firi isaaba boroom xam-xam yi nag bu ñuy wax fàggu ñaare lañ ciy jublu mooy loo xam ne nit ki daf koy wut mu mën koo jural njariñ di ko dàqal ay lor lu nit kiy wut mu mën koo jural njariñ di ko dàqal ay lor loolu la ñuy wax kas looloo tax ñu ne jëfi suñu borom kenn du ko tudde kas ndax suñu boroom amut njariñ lu muy wutal boppam waaye amul lor ju muy fanqal boppam ginnaaw nag nit mën naa wute nu ne mën naa wute fu ne loolu moo tax boroom xam-xam yi fuqahaa yi ñoom bi ñu ne fàggu dañ ko tënk ci anam goo xam ne lislaam dana ko nangu ñu wax ne fàggu mooy taxsiilul maali bi ma xalla min la asbaab wut alal waaye jaare ko nag ci yoon yi lislaam daganal ci gàttal loolu mooy fàggu yoon yooyu nag bari na am na ci loo xam ne nit ki bu cay wut alal dafay laaj mu joxe dara am na ci yoon woo xam ne nit ki bu cay wut alal mën na ko caa am te moom dara du ko ca fekk du ca joxe dara kon kas bi ay am na nga xam ne nit day joxe ñu jox ko waaye kas bu bi am na nga xam ne nit moom mooy jël rek waaye du joxe ñu ne fàgguteef li nga xam ne nit ki du ca joxe dara dara du ko ca fekk ñeenti xaaj la bi ci jiitu mooy miraas nit bu faatoo alal jam fiy bàyyi ña koy donn dañuy jël rekk waaye ñoom duñ joxe du am lu koy wuutu ñaareel ba mooy ak màng ba jihaad daan am jullit ñi lépp ñépp ñu jàmmar lool ba gañe leen lañu fay jël loola it lu ñuy jël la rek waaye duñ ca joxe dara ñetteel bi mooy xeeti coobarewu yi am moo xam muy maye moo xam muy saraxe moo xam muy joxe addiya moo xam muy li ñuy tuddee waqf loolu it kiy jël moom day jël rekk waaye du ko ca ñeenteelu anam gi nga xam ne dañ ciy fàggoo ci loo xam ne da jël rek waaye doo joxe mooy lu kenn moomut lu kenn moomut boo ko jëlee yow da ngaa jël rekk waaye dara fekku la ci comme matt moo xam ne kenn moomu ko walla àll boo xam ne kenn moomu ko la nga fay rëbb wala suuf soo xam ne kenn moomu ko boo fa bëggee tabax wala nga bëgg faa jëmbat wala nga bëgg faa def laneen ak laneen boobaa yow yaay jariñu waaye doo joxe dara bu dee pàgguteef bi nga xam ne nag moom danga jël waaye danga joxe moom it ñeenti xaaj la mën naa amee ci njaay nga xam ne da ngay joxe alal ñu jox la marchandise wala nga joxe marchandise ñu jox la xaalis mën naa amee ci daan sa doole li ñu tudde ijaara nga xam ne dangay ngay ñàkk di jariñu mën naa ame ci wàllum sëy ndax lu baree bari ci fuqaha yi dañuy wax ne lii tax euh, boroom kër di mën a séq ak soxnaam la ko war a jiitu mooy kenn kon dafay mel ne cen gi ak fay la ca ala kulli xaal masal la boo xam ne am na ak wuute ñeenteel bi mooy nit bu tooñee lu mel ne mu rey te tëyut daan yañ ko cay teg dañu koy tudde diya loolu it dafay mel ne e, dañ koy amee ci anam goo xam ne ak weccee da am kon ci gàttal loolu mooy fàggu ak ci anam yi ñu ko mën a defe bu ñuy wax alal ju lew mooy lan ak alal ju xaraam alal ju lew bu ñu ko waxee ci fiq mooy alal ju set wicc joo xam ne jenn àq topp ca amul àqay suñ borom ju ci topp amul àqay doomu aadama ju ci topp ndax nag bu boobaa dafay laaj nga xam fi alal ji soqi ko wala boo ko umpulee baax na foofu la wuute gi am li wér wóor mooy alal joo xam ne xool nañ ba xool xam ne benn àq yàlla ajuwu ci benn àq doomu aadama ajuwu ci alal àq yàlla mën na cee aju lu mel ni alal joo xam ne dañ cee génneegul asaka loolu këns lañ koy jàppe alal doomu aadama mën na cee aju lu mel ni koo xam ne dafa fekk alali jo alali jàmbur mu sàcc ko wala mu këf ko loolu alali jàmbur la yor ñu nag lu mooy loo xam ne àq yàlla ajuwu ci àq doomu aadama ajuwu ci léegi alal jooju bu egsee ci sa loxo ndax da nga koo war a gëstu laaj fan la jóge wala gëstu gi warut foofu la ñu moo tax suñu tubaab bi ñu koy xamle dane alxalaal mooy maa juhila asluhu aw ulima mooy loo xam ne xam nañ cosaan li wala ñu réere ko wala ñu umpale ko daa ciy teg ne wa fil xadis maa jaaka min gayri masalatin wala istishraafi nafsin fa xudhu fa innama huwa risqun saaqahu llahu ilayk dafay mel ne wax ji gën a wóor nag mooy alal bu xasee egsi ci yow te mu ump la te cosaan la ump la rek xamal ne lew na ci yow loolu moo gën a wóor ci mazhab bi ndax dañ ne diine lislaam diine la ju am ak jàppandi diine la joo xam ne it day woyofal moo tax bu ñu waxoon ne nit lépp loo yor rek da ko war a gëstu ji da ngaa war a laaj fu mu jugee boo boobaa ñëppay nekk ci coono waaye ñëppay nekk ci jafe-jafe imam Zarruq dafay wax wax ju am solo nee na alal ak ndox ñooyam ñoom ñaar ñëpp suñu borom da na a bind ñu set wicc ni nga xamee ne ndox dara du ko soppi lu may lu ko sobeel alal it noonu la demee dara mënu ko soppi lu may loxoy doomu aadama daf caa dugg kon bu ñu doon tënk dañuy wax ne alal ju lew mën nga koo xamee ci màndarga yii mooy jëmmi alal ji dafay lew dafay nekk loo xam ne am nañ lu am na lu ñuy tegtal ci lislaam ne lew na kon bu dee alal ju lewut lu mel ni ay sàngara wala yu mel noonu loolu moom taxut ñuy wax waaye jëmmi alal ji day lew léegi nag ndax àqay yàlla aju na ca wala àqay doomu aadama loolu bu fekkente ne ump na la rek ne jenn àq ajuwu ca bu boobaa nekk na alal ju lew ci yow comme li ñu war a moytu war koo sori mooy bépp alal joo xam ne dañoo xam ne dafa araam dañoo am yaqiin ci ne dafa xaral wala ñu ñaaw ca njort alal ji nekk ci sa loxo wala barab bi ngay liggéeyee boo ci amee yaqiin ne lii cosaan la dafa xaraamoon wala nga am ci njort lu ñaaw boobu baa day génn ci kaadaru nekk alal ju lew dugg ci kaadaru nekk alal ju xaraam noo koy xamee nag am na ñaari yoon benn nga xamee ko ci loo xam ne ay texte la yu ko wax lu mel ne ay ribaag yooyu nga xam ne ay texte moo ci wàcc ne yii dafa xaram wala nga xamee ko ci ay ay firnde ay firnde lu mel ne nit jox la nga xam ni kii lenn benn liggéey rek la am te liggéey bi mu am lislaam da koy tere bu boobaa nga xam ne alal ju mu fàggu moom alal ju xaraam lay doon moo tax imaam Xasaali yi da doon wax ne euh, nit bu alal yegsee ci moom jërul mu koy lëñ bët jërul mu koy lëñ bët di ko gëstu gëstu yu metti yi waaye daf caa war a rafet njort lu mu dem nag ba ba xam ba xam ci xam-xam bu wóor ne lii dafa araam wala mu am ci njort lu ñaaw booba waa moom araam na ci moom booba waa araam na ci moom daan ne alal joo xam ne leew na moom xam nañ ko waaye li nga xam ne mënees na koo xam ne ci màndarga mu joxe ci misaal mu ne mooy lu mel ne alal yi buur ak i dagam ndax ñoom ay ger ak yu mel noonu daf cay faral di yomb ak koo xam ne balaa fàggu rek liggéey ba muy def dafa nekk liggéey boo xam ne lislaam daf koo araamal lu mel ni koo xam ne day jaay sàngara wala muy yëngu ci riba wala yu mel noonu looloo tax sëñ bi loolu lañu jàngal def nañu daal alal balaa araam ci yow dangay dem ba am ci yaqiin wala nga am ci njort lu ñaaw waxtadiru min alladi ayqantum bi kawnihi alxaraama aw zanantum lan mooy alal ju araam ci ni ko sëriñ Tuubaa jàngalee dafa waxoon ne alal ju araam mooy maa lam yakun kasba yaminik walam yatika hadiyatan aw sadaqatan aw ishtiraan aw naxwaha kasariqati wal gasbi wa suaali bila xaajatin shadida nee alal ju araam mooy loo liggéeyut joxuñ la ko àddiyee saraxuñ la ko jëndoo ko jaaroo ko ci waneen yoon wax ne lislaam maye na ko daat koy misaal ne mooy lu mel ne sàcc wala këf wala laaj tàllal sa loxo te fekk soxla su far te jàmp waralu ko kon alal ju araam mooy safaanu alal ju lew mën nañ ko mën nañ koo tënk rek ci bépp alal joo xam ne nit ki da koo fàggu jaarale ko ci yoon woo xam ne lislaam nangoo ko wala mu jaaree ko ci anam goo xam ne charia mayewu ko nag dafay mel ne anam yim jaare yi muy jaarele fàgguteef lu lew mën nañ koo tënk ci ñaari anam mooy benn li nit ki di am di joxe di jël moom la ñuy wax muawada te waxoon nañ ko léegi wala loo xam ne nit ki dañuy jékki-jékki rek jox ko ko wala nit ki da koy am rek te euh, du ca joxe dara lenn ci borom xam-xam ñi dañ doon tënk fi nit mën a jëlee alal ju lew tënku ko ci fukki mbir mooy rëbbum jéeri saydul barri fu nit mën a fàggoo alal ju lew la saydul baxri napp napp napp ci géej fu nit mën a jaara la ba am alal ju lew tijaara bi sidq commerce boo xam ne dëgg ko lal amul triché amul dara nit mën na caa jaare ba am alal ju lew ijaara bi nus euh, daan doole goo xam ne day ànd ak ak laaj biire nit mën na caa jaare ba am alal ju bu ñu musaan euh, dem ci jihaad wala yu mel noonu la ñuy indi buñ ko seetlee te seetlee ko ci anam nga lislaam santaane foofa it nit mën na caa jaare ba am alal ju lew wal fay u ida qusima ala waji ak miraas moo xam ne ki ko fi bàyyi da ko fee bàyyi mu lewoon ko moom mu lewoon ko loolu la ñuy wax wa miiraas an aslin tayyib ak it suuf soo xam ne kenn moomu ko nga dem bay fa wala nga dem tabax ko loolu mën nga caa fàggoo alal ju lu ñu la jox mën nga caa fàggoo alal ju ak nag tàllal sa loxo bu fekkente ne condition yi lislaam wax daje na kon bu ñu doon tënk dañuy wax ne alal balaa leew daal dafay mel ne dañ ciy xool ñaari mbir dangay ngay xool jëmmi alal ji ndax leew na wala leewut loolu nag yaa ngi ko mën a xamee ci ñaari anam mooy na nekk loo xam ne mën nga ko moom moom goo xam ne kenn du la ci topp dara amul àq yàlla ju ci ajuwaat amul àq doomu aadama ju ci aju muy benn ñaareel bi mooy fa nga jaar ba am alal ji nekk fu lislaam maye moyens yi nga jëfandikoo ak jumtukaay yi nga jëfandikoo ba am alal ji nekk jumtukaay yoo ne lislaam maye na ko bu dee alal ju araam it loolu la ñuy wax lii araam mën naa nekk loo ne jëmm ji moo araam lu mel ne sàngara ak mbaam ak médd mën naa nekk loo xam ne jëmm ji araamut waaye amiin wi moo araam li ko wutee moo araam loolu mooy lu mel ne alal joo ne dañ koo jëlee ci koromp ger wala ci këf wala ci riba kon gis ngeen anam anam yi ñu mën a fàggoo alal ju leew dafa bari te wuute moo tax buñ dee ñu delloo ci mbindum sëriñ bi dañu gis ne moom fi mu gën a insister dëgg dëgg dëgg mooy leeral alal yi araam bu ko defee ñu déggaale ci ne lépp lu bokkut ak moom leew na te loolu mi ngi ko royee ci alxuraan ndax alxuraan noonu la def alxuraan dafa leeral yi araam wax seeni cislaay ak lii tax mu araam bu ko defee ñu mën caa dégg ne lépp lu bokkut ak moom dafa dafa leew dafa dagan qul taalaw at maa xarama rabbukum aleykum wa qad fassala aleykum maa xarama rabbukum aleykum wa fasala la ko maa xarama rabbukum aleykum am na beneen neen bu nekk ci diggante lu lew ak lu araam moom la wax lu lënt mooy rek lu leerut lu leerut loo xam ne day mel ne dañu am tegtal yu ñuy wan ne leew na am yeneen tegtal yu ñuy wan ne leewut loolu mooy lu lënt nga xam ne nit ki daf ci am ak jaaxle xëccoo bi daf ciy bari ñii naan leew na ñii naan leewut loolu mooy subha ni ñu war a wattandikoo lu araam nag war a wut lu lew noonu it lañu war a wattandikoo lu lënt sëriñ bi ci biirum mbindam gisuñ ci fu muy xamlee lu lënt ci lum bind waaye nag xamle na ko ci lum jëf Euh, am na bis ci ni ko Cheikh Mamadou Lamine Diop di nettalee amoon sëriñ bi tukki woon àndoon ak ku ñu wax alxaaj Ibrahim al Baghdadi nee na bis ñu nekk ci ron ak garab di cendal di kendal alxaaj Ibrahim mii nee nañ daf daan tux daf daan jëfandikoo euh, jumtuwaay yi ñu tuxe nee na bi mu toogee siñ bi ba mu yàgg rek mu génne mu génne jumtukaay bi sotti ci loxo bi daal di jàkkaarloog sëñ bi ne ko loo wax ci lii sëñ bi ne ko déet yow kay comme da ko daan def kon def rek loo ciy laaj ne ko déet danaa ko laaj kat ndax wuute gi def cee bari ñii di ko daganal ñii di ko araamal kon gis ngeen lu wuute bari ñii di ko daganal ñii di ko araamal dafay dugg ci lu lënt sëñ bi ne ko kon kay daa lënt ci yow in kaana kadalika fa huwa naa alayk mu ne ko waaw dafa lënt kay mu ne ko xanaa jàng woon laxdar yi mu ne ko ah kay naa ko sax mu ne ko laxdar yi boo ko jàngee ci njëlbeen nga ma la doon wax ne mu kàllaf sëñ ko def lenn lu may daf caa xam la ca yàlla àtte daan ko xanaa nag doo bàyyi kon ba xam ni ci yàlla àtte soo ko continué nee na bi mu waxee lool bi ko sëñ bi waxee lool alxaaj ibrahima albaghdaadi yi mii daal di weddem amatul lu mu wax nee wax ji àgg ko fu kawe Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana daa ciy teg ne alhaj Ibrahim al Baghdadi daal di wax sëñ bi ne ko maa ngi lay seedeel ne bis ni ki tey bàyyi naa tux jumtukaay ba mu ko doon defe mu daal di gas ba mu xóot mu suul ko nee na ca bis booba wala ca suba sa rek la jaayanteeg Sëriñ Tuubaa loolu mooy jëfandikoo lu ñu sib dañ ko war a bàyyi comme ni ñu war a bàyyee jëfandikoo lu araam waaye yaxantu ci tamit dañ ko war a bàyyi sëriñ bi am na ko ko mos a laaj ne ko jumtukaay bi ñu toxee ndax nit sañ na koo jaay bu fekkente ne dafa amul pexe sëriñ bi ne ko ah jumtukaay booba de wuute da caa bari ba sax boroom xam-xam yi taalif nañ ci lu bari lu war a mat fanweeri taalif ñii di ko daganal ñii di ko araamal man nag ngàññuma ko dëgganaluma ko waaye nag suñu borom moo waxoon ci alxuraan ne bul def lu la wóorut ilam anna duxaana tabaxun muxtalafun fiihi wa qad ullifa fiihi naxwu thalaathiina taliifan bayna muxallilin wa muxarrim wa ana la adumuhu wala amdaxu wa qaala taala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kon ci ay jamonoom euh, masalam tux dafa bari woon ay wuute ba sax bu ngeen delloo ci téere yi nga xam ne yi daan nañ ko bind naar yi Mauritanie yi da ngeen ci gis lu mel noonu ñi daan ko daganal ñi daan ko araamal wax ji bari ci lool mu mujj nekk lu lënt loolu nag wanewul na jëmmi sëriñ bi moom lor yi tux mën a indi euh, daf koo umpoon ndax gis nañ ci beneen leetar muy digal ay taalibeem naan leen moytu leen di taqoog tux comme ni ko ñenn ñi defee daan ne ndax bokk na ci ay loram dafay tax nit ci taqoog seytaane taqoog neen waaye it weddi xéewalug yàlla la tanbihun wa taxdir min mulazamati shurbi duxaani alladi yatadaawaluhu baadu nnaas wa min afaatihi mulazamatu shaytaani wal baatil wal kufraan bi nicma wa hadihi zawajir ngeen gis ne kon ni mu doon jëfandikoo uslub bi mu doon jëfandikoo waxin wi daf lay wan ne ba tey masala mi ci jamono ji moom leerutoon ñàkk leer gi moo war loolu mu nekk lënt waaye bu dee suñu jamono ji moom leer na ba boroom xam-xam yi gëstu ci wàll googu Euh, wéral nañ ne tux dafa araam jaay jumtukaay bu koy defee dafa xaraam kon ci gàttal am na lu dagan daal lu leew lu nit ci sañ euh, jëfandikoo sañ caa yaxantu sañ caa liggéey am lu araam loo xam ne nit ki daf ko war a sori am nag loo xam ne dafa lënt moom it lu nit war a sori la sëñ bi woote na ci ba tàyyi ci ay mbindam wax ne bu ngeen dugal lu araam ci seen biir wala lu lënt fu ngeen toll na ngeen di yem ci li leew te dagan laa tudxil al xaraama fi l batni wala maa fihi shubhatun balil xilla la am bi mu doon dénk taalibeem yi ci bi muy waaj dem ci tukkeem boobu muy dénkaaneem bu am solo boobu bokkoon na ca lam leen waxoon da leen a waxoon ne yéen ñi aju ci man ci lu nëbbu ak lu feeñ maa ngi leen di diigal ngeen bàyyi lu araam ak luñ sib te boo ngeen koy bàyyi ngeen bàyyi ko rek te yàlla tax waaye maa leen di digal ngeen bàyyi lépp lu lënt daan ne ku xam xàmmee na bàyyi lépp ku xamut na ànd ak ku ko mën a xamal ba mën a ràññee li dagan li araam ak li ñu sib ak li lënt wasaytukum yaa man taallaqu biya fi sirri wal jahri li wajhi rabbiya an tatruku muharraman wa ma kurih li wajhi rabbikum wa kulli mushtabih man alima aljamia fal yufariqa wa man biha jahila fal yurafiqa euh, waxoon ne seeni biir na fexe ba bu ngeen ci dugal lu araam bu ngeen ci dugal lu lënt ama albutuunu faxfaduha min xaraam wa shubhatin tanaawulan bi lan fisaam am kum doon dénk di ko wax ne maa ngi lay tere lu araam ak lu ñu ak lu lënt wax na ko ci ñaari barab yu bokkut ijtanibil xaraama wal makruha wal mushkila alladi ubi takriha faneen mu wax ne wajtani bil xaraama wal makruha wa karrihan ilayhima takriha kon ñu gis ne sëriñ bi woote na ci ba tàyyi euh, bu ñu bëggoon tënk nag lii tënk lu araam mën nañoo wax ne mooy bépp fàgguteef boo xam ne nit ki daf ko jaare ci yoon wu lislaam nanguwut wala bépp fàgguteefu alal joo xam ne nit ki daf koo amee ci anam goo xam ne euh, kak ko jox xolam seddu ca li ko tegtale mooy li suñ borom wax ne bu leen lekk seeni alal ci neen laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatil bil baatil nag mooy bi min gayri wajhi shara lépp loo xam ne rek lislaam daf koo tere loolu nag mën naa amee ci ñaari anam mooy benn anam gi mooy nit ki amee alal jaare ko ci yoon woo xam ne lislaam daf koo santaanewut lu mel ne ay kart wala yu mel noonu wala nit ki am alal jaare ko ci yoon woo xam ne Euh, ay pexe moo ko tër ak tooñ lu mel ni sàcc ak yu demee noonu kon loolu mën nañ koo tënk ci wàlluk euh, xamle lu dagan lu araam ak lu lënt bu dee anam yi muy amee fi mu mën a feeñ bari na waaye dafay mel ni mbindum sëriñ bi euh, fekk nañ ci ci suñuy biir gëstu fekk nañ ci ay yennat yoo xam ne mën nañ koo jàpp mën nañoo jàpp ne képp ku ci jaar ba am alal dañu jàpp ne wutiin wu léwut la ko wut fàgguteef lu araam la bi ci jiitu mooy sàcc texte bi ma jàngoon ci ginnaaw bi muy xamle lu araam lim njëkk a wax mooy kas sariqa sàcc lan mooy sàcc ci masab imam Maalik dañu wax ne sàcc mooy jël gone gu ndaw gu amul xel wala alal yoo xam ne duñ ko faral di baal ku ko jël ba mu koy ba nga koy jël nga def ay pexe nëbbatu ba kenn gisu la ba noppi jëlee ko fañ ko denc ci gàttal lii mooy lii mooy sàcc bu ñu ko bëggoon a misaal nag ci suñuy jamono bari na anam yu ko nit mën a defee léeg-léeg nit man nit mën a jël mën a sàcc loo xam ne dañ ciy mën a teg loxo dañ koy xool di ko gis di ko làmm di ko daj lu mel ne sàccum xale yi xew ñu leen di sàcc ci hôpitaux yi di leen sàcc ci biir kër yi di leen sàcc ci mbedd yi ak ci koñ yi sàcc yi fi jàmbur moo xam da nga koo sàccee ci pochetam danga nga koo sàccee ci ndafaam wala danga nga koo sàccee ci poosam sàccum téléphone da ciy dugg euh, sàcc xaalis da ciy dugg wala boog sàcc mala boo xam ne da koo fekk ca gétt gañ ko yeewu yëpp da ciy dugg sàcc crédit jëfandikoo jumtukaayu xarale yi ba àgg ci jël crédit jàmbur wala nga xam kotu crédit ba jël ko yooyu yëpp ci sàcc lay jóg sàcc ay marchandises